moom ci la sukkandiku daal di xam le ni que maanaam ay tour lañ fa changé yokk ci jub-jubal jubante bi waaye leneen li ci des yëpp PSC bi la ndax bu ñu fàtte ni que tey ki nga xamante ne tey moo présenté euh, moo moo bind li nga xam ne moom mooy projet bi ki ñu fësal mooy Victor euh, bokk na si ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom ñoo defar PSE bi. waaw mais mais mais mun na nekk spécialiste bu nga xamante ne moom loolu bon bon loolooy métier maanaam di bind ay projet mais ça di bo ça ne moom moo moom moo am idée bi bind ko. projet du ñu koy bindee yow da am sa idée. Mhm. Pastef aussi tamit parti la du benn nit. Mhm. dañuy am seen idée bu Diomaye day am idée Sonko am idée ñi nekk seen diaspora am idée seen idée yooyu ñu boole ko jël ko jox ko ku nga xam ne spécialiste la moom moo leen koy bindal mais ça ne veut pas dire que ne moo ko bind idée la bokkul de ça ne veut ne yow yaa ko bind sa idée la dañ ko jox sa cabinet pour nga. nga bindal len ko mais li ngay bind ñom ñoo naan bindal ñu lii walla yow léegi nak yi comme yaay professionnel bo amel bo amel bo amel loo leen di corriger nga len fi baaxul fi ak fi ak fi nga nga nga jobat ko loolu la rek mais ça ne faut pas dire que ne waa Pastef bind ñu affaire bi waye ko bind de non non non loolu mënul hmm waaw. quand ta ay Bougane Gueye Dany dañoo nek sen rôle ah dañoo nekk seen rôle di opposé mais Bougane amul ben compétence ak ak amul ben différence ak ak ak ñi fi nek ëpp leen xam-xam. ñi musu ñu ñenn ñi ñenn ñi musu ñu nekk ministre moom musul nekk ministre Bougane musul nekk député Bougane xamul état. mais nekk na chef d' entreprise. non defal ndànk. nekk na chef d' entreprise. nekk chef chef d' entreprise taxul nga xam état c'est-à-dire yi nañu bañ a dugg ci yenn erreur yu ngand yi Bougane Gueye Dany ëppul xam-xam ñoom Jomaay Faye. lu ñoom Jomaay bu ñoom Jomaay niilee Bougane dafa niil man maa la wax lii c'est-à-dire sénégalais foofu ñu ubbi seen bët yi di xool Jomaay Jomaay amul benn expérience ci état. amul une expérience ci comprendre na la day opposé wu mu opposé wu daf nand dafa nand jeu bu ñu day ko mais Bougane amul potentiel bu nga xamante amna ko te ñom Sonko yi amuñu ko. Hmm. amuñu bu dafa man wax li Bougane lan la Sénégal ci affaire état dafa ministère mu dox da président da député da élection. kon déjà man bon day day nekk si rôle am rek ñu nangul ko ko ah, mais amul benn acte bu nga xam ne Bougane teg na ko fii si état bu nga xam ne Sénégal yi teg nañ seen bët que ne Bougane lan la fi def. Bougane créé na emploi ñi créé wu ñu emploi. non xam nga créé emploi. Hmm. boo génnee fii léegi gis ku créé emploi. boo génnee fii hmm. gis menuisier bu créé emploi gis maçon bu créé emploi gis nappkat bu créé emploi loolu du dara. créer emploi du dara créer emploi mooy dama am sama xaalis jëndee naa ko ngooñ wut naa ñaari booy yu may jaayal muy noonu am naa sama sit jël naa ñaari nit maa leen di fay fin nangam nangam yaa ngi dégg boo leen fayal ñu dem feneen bu tayee nga dàq leen ñu dem fële loolu sawaay loolu pour man loolu loolu doyul si pour ñu jox nit réew man defa xawma gaay dañuy sëlmu di dem kaw wala dañuy sëlmu di góor gauche wala man do comprendre. <laughs> ndax la waaw ah, mais Sénégal ni ñuy gaawee ni ñuy maanaam ñoom ni ñuy gaawee bardé dafa yomb quoi Sénégal 1 deux trois ñu bardé ci ben affaire kenn waaw parce que ki am sen TV wala ki mom mom Zik FM wala ki mom mom Sénégal 5 les kooku mën na mais mais arrêtez. Hmm. <laughs> Ah, bu ñu bu ñu bu yow looy sous-estimer. non sous-estimé sous-estimé wu ma kenn. surtout justicimé wu ma kenn mais dama ne la Sénégal bi Sénégal de Sénégal ñu fekkee peut-être ñun fekke wu ñu Senghor Abdou Diouf lañ fekkee yaa ngi dégg Abdou juuf lañu fekkee wadd Macky Sall Diomaye mais boo doon xool parcours parcours ki gën a expérimenté ki ki gën a xam état Macky Sall bi fi jóge la Macky Sall lu seen morom ci dara Macky Sall nekk na Macky Sall Macky Sall de quartier rek la nekkul Macky Sall nekk na <laughs> député ministre premier ministre ministre d'État président assemblée nationale nekk président de la république moo tax xoolal bi mu ñëwee jot kii nguur bi taxawul dafa foncé boobu fekk na maîtriser na Bougane boo ko joxoon day làmbatu comme ni ñoom Sonko koy làmbatu ak Diomaye Faye mënul waaye dama ne la Bougane tey bu fekkoon ne dafa bëgg doon dara na dem nekk ji député bu jógee député jéem a nekk ministre pour mu comprendre lan mooy état ñoom Sonko ñi dañoo comprendre lañ mooy état wax nañ ko sax Sonko nekkoon na député. Sonko nekkoon na député mais député Sonko bi euh, daa am Sonko la mu daan ñëw bëriwul Sonko moom dafa am bay bayre xeex xuloo assemblée chaque jour bu fa duggee <laughs> gars yi di créé Sonko xeexul assemblée ba Sonko la mu doon ñëw bëriwul de mais au mois moom nekk na député xam na ak Birame Souleye nekk na député ñoom xam nañ mais Bougane daa mos nekk député. Bougane chiffre yi mu la Bougane ñaatoon la toog fi si télé bi débat intellectuel di daanu si ay chiffres. chiffre ku nekk mën na si jum président. waaw mais mais mais mais bu répété bu bu buy répété répété dañ naan sa waay tey tey nul. Bougane ñaata émission la def ak émission yoo xam ne émission émission yi am niveau mu mu passé à côté. Hmm. mais yéen Sénégal man Sénégal bi neex na Sénégal dinañ xëy rek fal. kon pour yow Bougane daal parewul pour pour pour. Bougane daf ko dese job liggéey wëri ji comprendre jéem a bokk ci état jéem a comprendre état relève la relève. relève la mm. ku ñu war a tàggat la ah ku ñu war a tàggat la bul yor sa télé rek yaakaar ne yow mën nga gérer état kon conférence de presse yi nga xamante ne mu ngi koy def c'est juste ci tànk Ousmane Sonko la nekk di toppa non xam nga koo yàggal c'est-à-dire Pastef bi ñuy ñëwee seen stratégie bi ñu doon demee ci politique politiciens yi xamuñu ko. Hmm. est-ce que du loolu moo tax. ñu daaneel nguuru Pastef Pastef Pastef. boo ko doon jàng lu bees parce que boo ko jàng stratégie showbiz la yor. Hmm? waaw parce que seen commune seen seen seen façon bu ñuy defee stratégie showbiz lañ yor parce que bu ñu la bëggee diaboliser tey dañ lay sot diaboliser la bu ñu bëggee jël lu nga xam ne fen la daf ko dëgg mun nañ am am am nañu capacité def ko ko ay expert lañ hmm? su Macky nee teg ñu dóor tak Bougane li muy def nii maanaam dafa lire jeu bi da a xam dafa xam moo tax bu ñu génnee rek mu génn. bu ñu génnee rek mu génn man damaa toog ba 15 heures gis ñu annoncé. bu ñu génnee mu génn. Euh, conférence de presse 16 heures man sama waa ji. mais loolu Sonko doon def Macky. Macky Macky nag ñi mu maîtriser woon mooy ñoom Idrissa Seck ki ay ay Khalifa Sall yooyu da na a lem ba mu ron. sànni mais bu. Sonko Sonko ñëw tëkk. xam voilà parce que bokkuñu. parce que Sonko du politicien. Hmm. mais ah. mais du politicien.

kon nangul nga ko loolu. waaw mais dafa comprendre mais bu fekkente ne dafa bëgg nekk président na jéem a dugg si état bi jéem a comprendre. Ah, xam mu ngi ci liste yi de mu ngi ci onzième position. waaw mais waaw ba de toute façon de de toute façon ñoom ñoom. ñu mais ñu ngi seen rôle de mais amul xam-xam bu nga xam ne booy booy gars yi amuñu ko de bu gaa yi nii rek moom dafa nuyul amul benn formation boo xam ne def na ko nii ci état wala dara non gisuma amul gisuma ko de Bougane daa mos nekk ministre lu mu yoroon joni joni. wow. sen TV ay entreprise joni joni tëjul. waaw waaw. Eh, sen TV tejul ba jam ba par yor ay employé di milliers employé mom bay ñep ko yor. yow yor nga employé. soit da ngay am 2 ki am 4 ki am 10 ki am ki gis nu yor employé El ñay yor employé bo don lim Sénégal ñu fa employé da ngay xam na mu toll lol day lol doyul pour <laughs> lol du critère bu lay joxe rew de. sa réew di caaxaan de réew jamaay commencé na am ay bijaaw nii gisoo ko fa nii. bijaaw bi commencé na génn ci leneen nga bi. yàlla baax na. Euh, beneen actualité bi gis nañ ko Diégui euh, Diop. sa mm. xarit. waaw ah. euh, libéré nañ ko après deux jours.